gars yi comme ni ñu leen ko waxee rek ba ñu ngi ci li nga xamante ne mooy choc bi ñenn ñi nga xamante ne fekkee nañ ko ñu def ci ay quelques témoignages euh, frère euh, naka la mbir mi demee ginnaaw bi ñu la nuyoo. bon ngi leen di nuyu ñëpp kenn ku si ne sa tur sa bon di leen wax ni daal sock euh, moom fii du fi gëju fi gëju fi te boo xoolee chaque jour daanaka maanaam si biir yàggul dara si biir weer ba la nele fan yële nele fële nele benn oto mbalit daw na fa ba wàcc. te ba hmm. mu wàccee. heureusement fekk fi kenn te fii boo xoolee chaque jour guddi gi dafa am ay maanaam ngoon gi dafa am ñu fi fubal oto bi daw na ba wàcc saaraan mi ngi nële fële même fi mu saaraanee wàcc ak fi mu ak soog ak soog fi mu abaat nii tey sorantewul te ba mu wàccee heureusement booy booy bañ nee màggal des na trois jours si la saaraan wàcc te ba mu wàccee yàlla daf na fekk fa kenn maanaam da li may wax mooy di ko kaas mooy lan ñun ñu ngi si risque si risque bi ñu nekk mooy fii suufu poola fii suufu pont la te en même temps fii garage la ay doomu aadama ñoo fi toog ngoon matin soir ñoo fi nekk oto mbalit yi li ñuy wax code de la route respecté wuñ si dara man damaa comprendre man xaw ma damaa xaw comprendre la ñuy foog ni état bi lañ nekk wala mais dañuy war respecte code de la si kaw lan ñuy tawal discipline maanaam ñuy dawal teg ko si yoon mais am na dawal yoo xamante ne jaaduwul keroog fii laa toog gis benn otomali yu jiit la jiit la fii di daw nga gis kenn ki signal gauche di daw lépp di wane ni dafa gaaw maanaam ñoom bu ñuy dawal dañuy jàpp ne particulier lañ yor mais oto bu saaraanee bu wàccee si suuf mën na rey ku ne te fii ñëpp fii toog li may kaas mooy oto mbalit yi pour lii mën a deñ ñu noppalu ko si sog yi métti yi wala tey lii ñaari demee no maanaam fii euh, li fi xew mooy oto mbalit bi da doon dawal mbëkk oto moto bi te ba mu ko mbëkkee yàlla daf na gis nga kenn ki ñàkk bakkanam te ñàkk bakkanam bi metti na trop maanaam si anam yoo xamante ni doy na war maanaam accident bi metti na ba fu metti yem ñun maanaam dañ koy mettitlu mettitlu bi mooy dañoo sonn ñun ñu ngi si risque ñun ñu ngi si risque li may wax nag dama koy wax ngir ñu jëlee oto mbalit yi fii dem utal leen yenn yenn beneen yoon parce que fii seen yoon la fi ñuy jaar la pour ñibbi fii seen yoon la fi la ñuy jaar fii pour euh, ñibbi mais dañuy jàpp ne ñoom fi ñuy jaar tàlli na tali bi tàlli na moo tax lu leen neex lañ fiy dox lu leen neex lañ fiy doxee c'est pas la première fois mais déjà oto mbalit bi dafa naroon saaraan si tey même choc mi ngi ne dafa naroon saaraan gaa yee ko téye li tax gaa yi téye ko dafa naroon saaraan même fi choc bi amee woon keroog ba gaa yi def ko TikTok foofu la naroon wàccee lépp li koy waral mooy. ñàkk a daw ndànk dañu war a daw ndànk respecté code de la route parce que am na loo xamante ni wóorul moto dara xajul si moom moto dara xajul si man mii di wax ak yow yor naa moto mais moto dara xajul si moom waxumala ak camion dañoo sonn quoi ngir yàlla ak yonent bi dañ leen utal beneen yoon ñu ut si ñu jaar si bu ko defee lii gëj fi parce que fii ay jaaykat a fi nekk wóorul chaque jour ku fi toog yaa ngi si risque wasalaam ñu ngi jégalu bu baax jaajëf jërë ngeen jëf waxaat laaj euh, mbir mi xew tey naka la demee nga expliqué ñu. waaw maa lay fay di yëpp euh, mbir mi demee maa ñun fii nii fekk naa fi deux soog yëpp tout tout temps fi leen fekk ma toog. bu tey bi dama jékki ñu ñoo ñoo suuf pont bi dama jékki-jékki gis dégg bruit bi nga bruit bruit oto dafa am doole dama jékki-jékki dégg bruit bi après seen gis xam nga trois roues bi ay kilo yoroon ay karo. karo ah, la yoroon après ñu jékki gis karo yi wadd après am ñu tali. man man si laa génn suuf point bi xam nga buri mun nga génn te xamoo liy ñëw si kaw fan fan lay dal si laa toog damaa génn ma génnee ma xool si kaw ki njëkk yem si soog bi daa dar bopp moo xam ne kaamaay liy soog bu garaaw la yaa ngi dégg après li dale li dale li la li dale camion bi xam naa fi mu ko tànn so sooy na ko waaw sooy na donc ndax ndax ndax boo gisee camion bi li mu daw heure bi mu daw dafa bëri ndax boo xoolee si kaw point bi man yéen naa bi si kaw mais camion bi ni ni muy drapé yaa ngi gis camion bi day drapé mu ne carrément drapé yi drapé def S def ay e, e, e, S mu tax moom li nga xam ne lim daw jaaw ñu naan fii ngi la ñaan war dafa tax dafa war a am ay limnèche pont ay limnèche boo xam ne nga xam ne bu si oto jaay daw doo doo ñemee daw bu baax dèjà yooyu booy bu tendre ah, mel ni ku nekk appuyage te rek te bi boo doon kawewul yaa ngi dégg kon gars yi ngir yàlla jëm suñu Fallou Mbacké mu ay limnes waaye boo ñëwee doo ñemee daw bu baax te soobu tey bi xam nga métti na trop ndax bakkan fu fu mu wadd rek lu métti la quoi. jaajëf jëf mbokk yi ñuy suivre fii ci People 221 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di am naqar ak tiis ci li nga xamante ni xew na fii ci VDN 3 bi mu di benn accident boo xamante ni mën naa ne man fi ma fekk euh, accident bi nag ni mu demee bala ma ciy ñëw li may wax mooy tali bi dafa xat nañ daw ndànk nañ dal ndànk borom oto yi dañu sóoraale borom moto yi borom moto yi dañu sonn moto boo ko yoree rek nga am sa papier yëpp sax taxul ñu reconnaître la ci tali bi boo xoolee accident yi am yëpp ci tali bi lu ci ëpp borom oto la ak borom moto donte kenn ñaanu ko yàlla mais euh, oto malaaka la comme ni ko waykat bi waxee accident bi nag ni mu demee oto mbalit bi doo doon ñëw bi mu ñëwee tombeek oto yooyu di oto pël yi muy trois yëpp ñaari nit ak ay karo mooy karo yi ngeen gis mu nekk euh, sama ginnaaw bi mu leen yabee nag oto bi xam naa ni mu doon ñëwee ak alir bi mu doon daw amul frein wala dafa perte frein tombeek ñee ñu ngi daw muy klaxonné mais ñëwee dégguñu ko par la suite nag ci la leen diree ba ñu agsi fii ah après nag ñun ci sumu liggéey fi la ñu fekk mais yoon may ñu ñu bi ñu ñëwee policiers yi ni ñu taxaw leen ne leen dañoo taxaw ah loolu daal lañ ci jot a xam après sapeur ñëw na def li nga xamante ni mooy liggéeyam ah, fii la xewee ci VDN 3 bi mais ñuy wax ni oto yi nañu daw ndànk te dal ndànk boo xoolee VDN 3 bi fii ba Malika amul doo daan kon ñun ñoo mën a comprendre leen suñu biir muy chauffeur bi muy borom moto bi muy cek-cek bi muy ku mën a doon nañu def ndànk fii la xewee ci VDN 3 bi lii ngeen gis nii mooy oto Pël Fuuta bi lii mooy moto Pël Fuuta bi yoon ñëw na nag def li nga xamante ni mooy liggéeyam sapeur pompier jël na leen ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom ah yëkkati seen dënn yàlla suñu borom may leen jàmm ak salaam ah ba ñu delluwaat ci seen njaboot mais vraiment soog bi fi la ma fekk mais metti na trop trop trop trop trop